dal leen ak jàmm mbokk yi nuyu nañ leen ziar leen di wax ñi gan ci page bi ñu abonné te activé cloche bi ndax vidéo bu fi bàyyeekoo ngeen di bokk te ñi ci njëkk jot te ngeen di aimé te di commenté lu ci am solo la waa mbokk yi suñu capitaine bii di Kalidou Koulibaly demam fële ci club boobu di Chelsea mu ngay gën a jege bu baax a baax wante laataa ñuy ñëw ci faram-fàcce gi dañ leen di poser benn question ci Benjamin André mi nga xamante ne ku ne xam na papam sénégalais la wante moom biñ ko laajee ci question boobu ndax bëgg naa jouer ci équipe nationale bu Sénégal wante kaddu yëm ci yëkkati woon moo di dey dëgg la papam day sénégalais la wante amul benn intérêt di jouer ci équipe nationale bu Sénégal kon mbokk yi tontu leen ñu ci kàddu yooyu nga xamante ne moom Benjamin André yëkkati na ko wante nag question la boo xamante ne dafa xaw a dérangeant wante tontoo leen ñu ak xel te bañ ñoo tontoo ak xol kon ñu ñëw ci faram-fàcce gi ak kaliidu Kalidou bali mi nga xamante ne ay mbiram ma ngay tàng jër ndax jamono yi club bii di Chelsea daal ak waa la ñu trouvé nañ accord bu ñu sukkandikoo ci Fabrizio Romano joxe na ci ay information yu leer nañ nee na jamono yi day ca cëppaandaw ga ña ngay waxtaan de te d'accord nañ ci ay kàddu ñi nga xamante ne mooy Chelsea ak ki nga xamante ne mooy agent wu Kalidou Koulibaly waxtaan nañ ba juboo ci wàll personnel maanaam ci wàll salaire yi nga xamante ne war nañ koo fay ki nga xamante ne mooy Kalidou Koulibaly ba ki nga xamante ne mooy Fabrizio Romano nee na day Kalidou Koulibaly dina laal lu tolloog ci 10 millions d'euros ci at kon mu nekk loo xamante ne dafa ñarte salaire ba mu doon fayeeku fële ca la dina signé contrat ba mu war a xaatim ak Chelsea tamit dina jeex 2027 wante day mbir yi day ba léegi jeexagul trouvé nañ accord ki nga xamante ne mooy Chelsea 35 millions d'euros la fayagul ci Kalidou Koulibaly wante Naples ma ngay laaj 40 millions d'euros ba Fabricio Romano nee de Chelsea pare na ngir 38 millions d'euros bu ñu waxtaan wante nee day amal ay waxtaan qui fan yi ñu jëm ngir ñu trouver accord bi nga xamantene moy jéxal waxtaan wi bu waxtaan wi jeexee Kalidou Koulibaly dem fële ci Angleterre dal di signé ci club bu bobu di Chelsea nga xamantene PMD koy ci PM di Edouard Mendy falay football club bi nga xamante ne Thomas Tuchel moom moo koy entraîné kon Kalidou Koulibaly man nañoo wax demam fële ca Chelsea ma ngay gën a leer bu baax a baax kon ñu ñaan mbir ya daal di yembu kuri Koulibaly dem signé fële ca Chelsea kon loolu lañ koy ñaanal kon mbokk yi li lañ leen loon di wax ñiy gan ci page bi ñu abonné te activer cloche bi ndax vidéo bu fi bàyyeeku ngeen man si jot jaa bi